السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ndax moom rek moom moo yeyoo màggal waaye moom rek Allah moom moo yeyoo kañ mooy buur mooy boroom moom moo yeyoo ñu jaamu ko te bañ ko bokkaale ak dara ñu ngi julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam ba bés penc yàlla nañ ci yàlla boole doomu ndey mbokk jullit ñi weeru koor mu ngi ñuy tàggu mu ngi ñuy tàggu ci anam boo xam ne bu fekkonte ne am nañu xel dëgg di xalaat te am nañ ko sax war nañu gis ne koor gi dafa ñëw ak xéewalam ñu dund ko ci jàmm ak dal xol yi ubbeeku tàppe jaamu yàlla gi ne xadar def lu baax moo xam joxe moo xam suñu yaram yi sawar ci ñu def ko un mois war nañoo xam ne weeru koor gu bu jeexee lii moom moo ñu war li ñuy faral di wax lu bari mooy nit ki lu mu xañ boppam ci weeru koor ci lu ko dagan war naa mën a góorgóorlu ba bu weeru koor paasee li xaram ci moom mu moytandiku fas yi ñu seen nii ci kaw tali bi ñuy daw tëbuñu rek ñu leen takkal leen ngalab nii rek dawal leen ñu daw déedéet borom balaa muy am lii daj na lu nekk ci àll bi xeex ak moom def lu nekk ba mu nangu ñu teg ko sareet bi dafa dem sax ba finalement léegi boo ko chargé lee mu dem livré buy ñibbi place ba dellu ngay sonn day dem ndax dañ ko cee yar weeru koor nga yar sa bakken bi daj ci moom lu nekk. ubbi frigo bi xool gis ne lii dagat na ma laaloo ndax damaa woor sa soxna lew la du ma ko jege ndax damaa woor ngallawaay bu weeru koor baas paasee war ngaa mën a moytu ba moytu lu xaraam ndax lii la daganoon mucc nga ci ci weeru lëmm tey suñu waxtaan dafay dem ci saar bu am solo yàlla jagleel ko ñi gëm yàlla ngeen gis ci alquran lu ëpp yàlla dafay woo ñi gëm yaa ayyuha alladina amanu saa bu ko woowee rek dafay teg loo xam ne ay santaane la wala mu teg loo xam ne ay tere la bëri na lool ci biir alquran waaye yàlla jël saalu lëm tuddee ko al muminuun muy suratul muminuun yàlla tàmbalee ko ci bégal bégalaate la ko yàlla tàmbali mu ne qad aflaha almuminuun texe nag ki nga xam ne moo gëm yàlla te ñun ñëpp bëgg texe ñun ñëpp ñoo bëgg àjjana àjjana bi ñu bëgg sax moo waral suñu daje gii yàlla mën a texe na ki gëm kon dafay baax nit ki xam ne kan mooy ki gëm mu mel ne sax moom yàlla dañ ko war laaj kan mooy ki gëm moom ñu defal mu defal ñu tafsir kan mooy ki gën waxoon nañu tafsir bi gën ci tafsir yi mooy alquran moroomu aayam maanaam aaya alquran moroomu aayam firi moroomam fii yàlla moom moo ñu wax al mu'min texe na waaye mu xamal ñu kan mooy ki gëm mu xamal ñu ko ci ay jikko waaye dafa baax des fois doomu aadama bi di settantal alquran di ko jàngat yàlla mu ne ki gëm mooy ki nga xamante ne dañ koy def bu gaaw allazina mooy ñi nga xamante ne hum fi salaatihim xaashi'uun ñoom bu ñuy julli dañuy toroxlu ci biir julli gi maanaam julli gi duñ ko jàppee ay foo di wokkatu fii di gersu fii di tourner lu nekk ñu dugg ci ñoom bu ñuy julli dañ ciy toroxlu bu jaar laajee jooy ñu jooy da ngeen yaakaar ne imam yi ngeen di gis ñuy julli di jooy daf leen neex rek nii ñu am envie rek bëri rongoñ di jooy déedéet bu ñu déggoon li ñuy wax dañuy xam ne li ñuy jooy daf koo jar yàlla du waxantu te wallaahi kàddu yi ay kàddoom la du kàddu nit kàddu la bu yoo xam ne kii wax du waxantu te bëggul sax kuy wax te du def mooy lu mu fi digg yëpp da koy def waaye yow ngay jàng yàlla ne la boo defee nangam ak nangam dinaa la dugal àjjana boo defee nangam ak nangam dinaa la dugal beneen kër bi bu ko wax turam waaye léegi yow doo jooy kon da ngaa déggul li mu wax wala kii wax xamoo mooy kan. kon nit ki buy julli dafa war a di toroxlu ci biir julleem bu laajee jooy mu jooy na jooy sax bu mënul jooy sax na jooy jooylu parce que yonent bi mu waxee lii ñun ñëpp xam nañ Seydina Omar nu mu meloon dafa taroon dëgër nekkul woon nag ku difficile comme ni ñu koy waxee ni dafa tàngoon bi déedéet dafa dëgëroon ci diineem rek nekkoon góor boo xam ne góor bu dëgër la mel ni comme Mouhamed Touré mu baal ma dëgg moom du ko négocier ñu ne dafa tàng diine déedéet mais nekkoon na koo xam ne dafa dëgëroon ba jooy yomb ko mu ne yonent bi man de mënumaa jooy comme ni nga ko waxee nii yonent bi ne ko nga jooy jooylu kon booy jullit jàng alxuraan mënoo jooy jooy jooylu sax far parce que loolu mooy génnee sa toroxlu te li ngay julli nga bàyyi ci xel moom la yàlla tëjee li nga xam ne moom mooy jikko yi bu mu ko génnee mooy jikko bu njëkk ñaareelu jikko bi wala ziina hum li wala ziina hum li li zakaatihim non non maa ngi tëb
والذين
wallazina hum anil laghwi mu'ridun bokk na ci jikko ki gëm yàlla moom doo ko fekk place caaxaankat place caaxaankaay du ci nekk caaxaan daf koy daf koy contourner waaye du fa toog maa ngi romb koñ bii ay caaxaan moo fa am du ma jaar ci koñ bi bu fekkee am naa beneen solution dama koy tegg su fekkee moom rek moo fi sës su ma fiy jaar ak ci fulla laa fiy jaar mooy damay jaar mais caaxaan dama koy def impasse du ma toog ci làmb du ma toog place su kartukaay yi li caaxaan yëpp ñu xam nañ ko ki gëm yàlla moom dafay romb li nga xam ne mooy caaxaan ak fulla ak fayda waaye du fa toog mooy wala seen alillahu bi muridun jamais nga fekk leen ci place caaxaan kaay moo tax boo xoolee même ci biir alquran bi suratul furqaan yàlla bi muy wax jikkoy ibaadu rahmaani dafa indiwaat même lax yu bii bokk na seen jikko du ñu romb place caaxaanukaay bu ñu nee romb nag mooy doo fa dem bay jël seize di toog ñun tey football moo ñuy teree bu paa jaata ne ay yàlla sola nga ne noo garaaw bu match bi jeexee dinaa ko yeggale dinaa julli bu làmb bi jeexee su ma demee julli ji damay tardé séquence kon foofu ngëm nekk fa ñetteelu jikko bi wala zina hum li zakatihim faailun ñoom du ñu nay dañuy génnee azaka yow imagine toi nga am alal alal bi toll ci loo war a génnee azaka ñu ne la 1000 francs bu nekk génneel juróomi dërëm nga ne déet du ma ko génnee loolu nay la ah fa la mën a yem 1000 francs bu nekk génneel juróomi dërëm nga ne du ma ko génnee kon loolu bokkul ci jukku gi gëm ki gëm yàlla dafay génnee di joxe ndax gëm joxe alal ci xol la sax waaye di ko génnee di ko joxe mooy wane sa ngëm mu ngi sa xol te boo koy génne day mel ne sirit booy dagg waaye doo ko yëg parce que ngëm bee fa nekk wala ziina ba léegi ci ñi gëm hum lu furujihim xaafizuun fii moom dañ ci war a taxaw xam naa dinaa ko dabu ci ci naafila bi dina gaaw bokk na ci jikkoy ki gëm dafay sàmm pëyam du njaaloo tey njaaloo mu ngi ne xadar ci kaw suuf xadar ci kaw suuf internet téléphone bii bu ma taaloon léegi connexion bi ci alquran moo fi nekk de ci biir al kaamil alquran bii la ñuy publier pornographie boo ci buggee mucc mooy da ngay dindi connexion bi njaaloo comme léegi xadar muy ci ku góor rawatina ci jigéen ñi sax jigéen ñi yéen jigéen ñi yàlla saar la leen tuddee surtout nisaa yéen jigéen ñi yàlla tànn kenn ci yéen tuddee ko saar muy Mariam bi malaaka bi ñëwee ci moom ne ko da ngay am doom xoolal lu mu ko ton nu may munee am doom te góor musuma laal tey tubaab bi fexe la créer la ay mbir boo ko defee sa yaram da defal loo neex ak góor dara du la ci fekk ay na waa an yàlla bokk na ci màndarga ki gëm yàlla wallazina hum li furujihim xaafizuun dafay téye payam buy sëy ak soxnaam lay sëyal wala ak borom këram nit amul droit sëyal ku dul ñooñu ba mu des wala aw maa malakat aymaanukum jaam bi nga xam ne moom nga posté amatul ani jaani kon sëy nañu sëy ak suñu soxna yi loolu mooy maanute gis nga ñàkk sëy ak sa soxna wala ñàkk sëy ak sa borom kër dafay fay leer ngëm bi nekk ci yow moo tax boo xoolee saar bi bu mu jeexee rek yàlla suratul nuur la indi léeg-léeg nga dégg imaam saar da koy jàng lu bëri allahu nuuru samaawaati wala ard ba aaya boobu jeex fi muy jeexee sax mu ngi naan yu'ti nuurihi man yashaa mooy joxe nuuram ku ko neex waaye leer boobu li ko gën a mën a gaaw a fay mooy njaaloo njaaloo moo gën a mën a gaaw a fay leer moo ko tax suratul nuur commencement bi rek mu ne suratul anzalnaaha wa faradnaaha lu mu lu mu si teg azaani lu wa zaani indi commencé àttey njaalookat yi leer boobu li ko gën a gaaw a fay moom mooy njaaloo nañ ko moytu baaxul te tey mu ngi ne xadar yéen saa saa nee na yowmal xiyaam du taxaw lu dul ne da ngay romb nit di njaaloo nga ne ko puusal may ma ma jàll la mooy maanaam dañuy njaaloo ci ruq yëpp ba yow fi yoon bi ngay jaar sax ñu ngi fay njaaloo ba nga da ngay naan nit ki puusal ci yoon bi may ma ma jàll tey am na wala amul tey am na wala amul dafa am te ñuy woote dañoo gëm yàlla koo ci ne gëmoo mu mer la jéppi la kon nit ki li muy woote daf koy nuru wallazina hum li furujihim xaafizuun illa ala azwaajihim aw ma malakat aymaanukum fa innahu xayru malumin yàlla mu ñuy tëkku fa ne fa man tara waraa dalika fa ulaayika humul xaaduun ba léegi bokk na si jikko yi ñi nga xamante ne moom mooy ñi gëm yàlla wallazina hum li amaat amaanaatihim faa'iluun ñoom dañuy sàmm li nga xam ne moom mooy kóllëre bu ñu nee kóllëre nag ñaari mbir mi moo ci aju fekk naa imam Sarr mu toog ma wóolu ko wax ko sama sama secret daf koo war a téye fekk naa imam Sarr mu toog ma am sama alal bu may dénkaane ma dénk ko ko daf ko war a sàmm yonent saa sala bu ñu ko fekkaan te xoolal miskin la woon dafa ñàkkoon yonent doon toog deux mois du taal ci këram waaye da nga ko doon jox dénkaane bu dee bëri ko dugub la mu ne la muur ko foofu boo ko soxla waatee ñëw di ko jël si yow yaa koy muur sa bopp moom du xam lu ci nekk ci maanaam ñëw naa fekk imam Sarr jox ko 10 000 ne ko téyel ma su ma koy laajaat 10 000 même numéro 10 000 boobu lay doon loolu mooy maamute tey fan la ñu toll ci loolu ci dénkaane yi wala zinahum li amaanaatihim faailun fan lañ toll wala zinahum ala salawatihim yu xaafisun fa lañ koy tëjee ñoom bu ñuy julli dañuy bàyyi xel julli bi ñuy julli bàyyi xel julli nag dafay bokk ci biir julli gi waaye dafay bokk ci après boo génnee julli gi nit ki bu taxawee di julli imaam jiite ko mu ngi ci biir julli gi waaye bu génnee julli bi ba léegi mu ngi ci biir julli gi nit amul fu muy génnee julli amul boo jullee ba pare la ñu wax inna salaata tanha anil faxshaayi wal munkar yàlla waat wala zikrullah akbar faxshaayi wal munkar fan lañ ko defee ci biir julli ci biir julli lañ defee faxshaayi wal munkar déedéet bu ñu génnee julli gi lañ koy def léegi nag benn julli bu baax boobu noonu yàlla nee na su la ko nangulee daf lay soril ñaaw téef ak bàkkaar nit ki fan lay defee ñaaw téef ak bàkkaar bu jullee ba pare kon bu jullee di sàmmanteew ak julli gi mooy que ne day moytu ñaaw téef ak bàkkaar kon ba léegi mu ngi julli fan la tàqale koo yëg julli kon nit ki bu jullee bëgg xool ndax julleem nangu ne ko muy bàyyi xel ci julli bi muy julli mooy lépp luy ñaaw téef ak bàkkaar ci biti daf koy moytandiku nii lay taxawee nag ne man mii kat gëm naa yàlla juróom yi bu dajee ci moom yàlla seedeel ñu ko ci alxuraan day taxaw ne man mii kat gëm yàlla mu ngi ci man yàlla nañu yàlla def ñu gëm yàlla yoonu saa salaam yàlla moom moo ñu ko ci alxuraan mu ne nit ki su ngeen ko gisee rek mu takkook jàkk rek seede leen ci moom gëm boobu moom il faut ñu il faut ñu tudd ko duñ fi doon tudd pour ngëm buñ ko fi doon tudd duñ fi jóge dañuy nekk dañ ko fii nekk ba fajar waaye bii moom nañ ci bàyyi xel ñun jeunes yi ëpp naa def nii bu koor gi pe- paasee ñuy am benn sàppe da ngay rus sax fajar boo ñëwee suñu papa yi rek ngay gis fa ngeen nekk jeunes yi fu ngeen nekk yonent bi neen inna yàlla nee na innama ya'muru masajid allah ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem di jooxe seen tànk di dukkat di dem di feesal jàkka yi mooy ñan man amana billah ñi gëm yàlla kon nit ki su amee ngëm dafay dem jàkk surul dem jàkk mooy contraire bi surul dem jàkk mooy contraire bi duñu dafay day borom xel yàlla bu nee ñii dem jàkk mooy ñi gëm yow soo dul dem jàkk génn sa bopp ci ñu gëm ko aw ma droit xool imam Sarr seedeel si moom ne am na ngëm def ci yaqin loolu ne gis naa ko muy dem jàkk kon nañ takkoo dem jàkk li ñuy def nii mooy jaamu yàlla gi bu koor gi jeexee nañ ko continuer ndax loolu moo ñuy jig yàlla mi ñuy jig baa baal jéggal dañu dugg àjjana wallaay moo yooyu ñu fasanteeg moom kóllëre seytaane mi nga xam ne daf ñuy nax bi ñu jëmee safara wallaahi nañ ko moytu te yàkkamtuwu lu ne weer bi feeñ na korite ñu dem lëkkaloog seytaane ànd ak moom moom mi nga xam ne mooy suñu noon bu mag bàyyi fi yàlla mi nga xam ne moom moo ñuy baal yàlla mi ñuy baal méritowul ñu ko trahir te wallaahi bàyyi fi yàlla ànd ak seytaane mooy trahir borom bi subhanahu wa taala yàlla na ci yàlla musal nañ jublu ci naafila bi incha allah yàlla nañu yàlla may dégg ak topp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu